doon caacaayee ko mbandaari gokk ay doomi yeneen réew ñoo koy amal ci Sénégal ci anam gu jéggi day lool loole nag gan gu yeewi béy la bés bi le jour yi ni kay xëy na daal di weeje seen i mbóot ak it nag njàmbaartek way takkadër yi mayul leen lan na fu ñu jàkki seenu nag ndax it nag rëbb nañu leen ba dal leen di jàpp ba lu jëm ci seenu ko dëkkuwaay dal nañ koy maasale ne dootuñu fa tegati tànk mukk ndax ñi ngi ci loxol yoon bés bi le journée mi ngi toll nag ci juróom ñoo xamante ni la ay doomu réew mi la ñi ngi jaare woon ci wàllu ko internet bi rek di lor ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi yi ak it nag di ronqat seen wàllug alal ba deseetuñu dara yéenekaay gi ne seen nupp lim sax dafa daal di jéggi lool te daw yaram ndax it nag yéenekaay gi ne ma naan ëpp na junni ak juróom-ñett téeméeri doomu aadama ndax nañu leen tojate bi ma nga naan toll na ci ñeenti milliards yu ñu ronqate cay doomu Sénégal lépp rek ci naxaate gi ci wàllug internet bi journal bi na nañu ko daal di moytandiku ak it nag wàllug téléphone yi yi ñu fekk ci ñoom ñoom doomi chinois yooyu la journal bi ne juróom-ñeenti téeméer yu tegal fukk ak ñaar ci ay carte SIM yu réewum Sénégal ak Côte d'Ivoire Malik Cameroun jamono jile ñoom juróomi doomu réewum Chine yooyu la nag dese na rek ñu daal di wane seenu ko xarañteef ak man-man ak bari pexe ba dañ ci loxob yoon mi leen sànni ab jatank yow leen ba ñu ne ngodd ñàkkul ne ARTP loolee la daal di xelmati bu ñu jàngatu yunikaay gi du la quotidien ak joxalante gi ci wàllu ko koppar ak yónnee gi wala wàllu ko jot gi journal bi mën naan daan ci aar noonu la ko journal bi daal di dégtali ci xatamu njëkk ARTP nag lay jubluwaayam ci loolee mooy gën a ñoŋal denc nuk koppar gi yokk ci ngëneelu ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ak it nag pexe mañ ci daal di nas loolee dootul yàggati mu daal ko jëfee gi yi ni kaay gi ne loolee ay wax waxtaan képp mooy li ko mën a sottal woote baa nga bàyyi ko ci njiitum réew mi waaye nag ku moytuwulee moom son excellence président Macky Sall dana ci dal di ak ñi nga xamante ñoom am nañu a ki nga xamante moom moo di Mimi Touré ci cere ji suuf moom itamit ànd ceek góoram di Mali Malick Gakou ne keneen moo leen di woo ñi koy wujji ba mu des président Macky Sall ndax la waral góogale tànkam lu moom du desandik ndawi passé bi mënees na ko xelmati ak journal L'As ma nga naan parandooy Ousmane Sonko yi ñu tey ci kaso bi jamono jile ñi ngay wéyndil seenuk fippu ci rëbës ak seenuk lim bu toll ci ñaar téeméer juróom fukk ak juróom-ñaar journal bi L'As ne ñooñee ñëpp ñu taaj leen ci yàpp barab nag aju ci parti Pastef soobu nañu a tànkam ca barab ba ñu koy amalee mënees naa njortees ne du kenn ku dul Xalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru ba woon enquête yu ni kaay xëy na daal di ay mbiram ak lan moo war a mën a doon ak dellu suwaatam ci pom politique mi rawatina lu jëm ci wàllu ko élection yi nga xam ña ngi ko fi daal di dëgmal loolee nag journal bi ma nga naan Xalifa Sall kay ay sembaki mébét yu bari la daal di tekk jamono jile te it nag mën naa yegg sax ba lépp lu ñu ko doon toppee ci wàllu ko yoon di ko ko may nag lu dul ne daal di dialogué enquête yi ni kaay xel ma te ci ne ndax sax bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa socialiste yi duñ jéem tamit dajuloo waat yéegandoo ci ndaw fas di ngaraw di dem ay xol yu fees tepp ak mbégte dara warulu ko lu dul wàllu ko tàggat yaram ña nga ci football ba stade yu ni kaay ne kan U17 bi nag Sénégal defati na jàllurem ak Somalie gi mu dajek naki démb bi ba bëccëg nak la ko daal di wan wulli ko ba mu sonn sëlam ko suuf daan ko ñetti bal ci dara waa Somalie nag mujj ñoo ji saxam ndox mu ñu daal di raxasu stade yu ni kaay ni ñoom ñoo di gaynde yu ndaw yi doon gaay Serigne Saliou Diaye yi ñi ngi ci tànk yi seen mag yi doon U20 yi nga xamante ni weerug mars gi weesu rek la ñu bettee woon mbégte lu yaatu lool réewum Sénégal ci keer fii ci Sénégal moom lamb jéggaani wu ñu ko sunu lomb yéenekaay dikkaat ci front ak Forza combat bu njëkk ci anam gu kawe lool ci diggante poids lourd yi loole nag 21 mai lay doon seen face à face ngi ko daal di dëgmal dimanche ko jàmm laataa ñu yegg ci bu mujj bu Jackson moom ak xeeru Thiam ab jongante derby ci Pikine Thiaroye Pokola bu lal ëllëg la ci dimanche